salaamaaleykum amateur de foot yi nuyu nañ leen ku ci nekk seen ab tur ak seen ab sant xibaar tey jii euh, 13 juin 2024 euh, ci wàllu tàggat yaram moom lañ leen indi li doon wax ci Real Madrid ak Davis Bayern Munich nu mu mujjee ak euh, kooke ñu naan ko Lionel Messi mi nga xam ne gis nañ ko muy jeu ba bi foot noonee doon wax ci lu bëree bëree bëri bëri mu ngi noonee waaye balaa dara képp koo xam ne nag abonné go suma chaîne YouTube bu ko di taay abonné ngay liker di commenter di partager. loolu ngeen ñu mën soutenir ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def di leen jox xibaar matin euh, midi euh, soir mu ngi noonee kookee euh, n'oubliez jamais que Costa Rica a dominé ce groupe lors de la coupe du monde 2014 bi weesoon xamu nag yéen a ngi koy fàttali Costa Rica moo jëloon première am 7 points Uruguay jël deuxième am 6 points Italie oh ndeysaan wàcc troisième am 3 points Angleterre quatrième am benn point. poule de la mort Costa Rica non mais football parfois nga ciy gis ay mbir yu yéeme moom ngeen di gis noonu image bi mu doonoon année xam ne c'était historique en 2014 mu ngi doon ne foofee ca Brésil nga xam ne boobu yi mu doon loo xam ne c'était très difficile pour eux seen dëkk fekk si leen dóor leen doole euro bii di ñëw nag seen ballon bi gis ngeen ka nu mel noonu Adidas loolu la produire mu doon loo xam ne ni c'est super nice mu ngi doon ne João Félix nag bu baax sax. moom na génn bay leeral kan yi nee na tu ne connais pas le président du Portugal mais tu connais Cristiano Ronaldo oh là là quel cadeau nee na vais-je devenir la personne le plus célèbre la plus célèbre euh, au Portugal après Cristiano Ronaldo peut-être oui nee na peut-être oui waaw mën naa ne nee na Cristiano Ronaldo est un exemple pour tout le monde au Portugal dans le football et dans la vie nee nous avons tous beaucoup de chance de l'avoir rencontré et de l'avoir vu jouer nee na Cristiano Ronaldo euh, foofee ca Portugal mën nga bañ a xam président mais di nga xam Cristiano Ronaldo nee na kooke di Cristiano Ronaldo moom moom mais di João Félix à part moom mën na doon ki fa gën a célèbre foofu ca Portugal waaye nee na Chris de motivation la pour jeunesse bi ci monde bi waaye foofee ca Portugal ku ne war ngay xool ci moom ku ne tamit bëgg nga gise ak moom ku ne bëgg nga nekk ak moom mu doon loo xam ne nii kooku di João Félix joueur Barça moom la génn di Real Raphaël Varane ancien joueur Real actuel joueur Manchester United actuellement nag dafa war a libre foofee ca United Inter de bi nag ñoom ñu ngi ci en discussion pour war koo mën a signer agent libre kooku ñu naan ko mën naa ni Euh, Raphaël Varane Lionel Messi moom ngeen gis noonu ne euh, muy babi foot di euh, dund ay vacances am waaye it dañuy waajal seen Copa America bi nee na Jeux yi il pense pas que ni dina ko jouer nag non seulement âge bi mayatu ko waaye yamaatuñu foofu loolee dafay tombeek Copa America bi te du jël lu toll ak deux mois bañ koo xañ clubam boobu di Inter Miami mi nga xam ne da koy fay nee doon na loo xam ne nii c'est quelque chose boo xam ne c'est inacceptable ba tax mu wax kooki euh, ñu naan ko Mascherano que ni mbir mi du mën a nekk démb nag USA ak Brésil match bi un but partout la mujjee ñaari star yi ci seen club seen équipe nationale cadre ñoo dugal kooki di Pulisic moo dugal biwu États-Unis mooy USA bi Rodrigo le joueur de Real Madrid moom mu dugal la l'unique but de Brésil ngeen xamee ko noonu waaye yamaatuñu foofu gars yi kooke euh, ñu naan ko mën naa ni euh, Barça actuellement Euh, ñu ngi leeral que ni su demee ba Caicedo ak kookee ñaan ko Enzo Fernandez Caicedo jar 133 millions d'euros Enzo Fernandez jar lu tolloog 121 millions d'euros kookee di Araujo war na dépasé loolu dinañ ci def vidéo spéciale wax ci en tout cas loolu waa Barça gën di leeral kookee ñaan ko euh, Cateleyer moom nag euh, dafa rejoindre woon Atlanta et Milan considère cet été argent mu ngi noonu comme la clé pour boucler le deal Zik Zik Zirkzee. mu ngi noonee Milan nag actuellement ci xaalis la yaakaar pour gérer deal boobee kookee ñu naan ko Ancelotti ñu laaj ko sa aventure foofee ca Paris Saint-Germain ban moo ci gën a neex mu ne ba muy jël Ligue ban moo ci gën a naqari mooy ba mu fay euh, jugee di leen fàttali ne Ancelotti bu Real jot na faa jaar wane fa boppam mu ngi noonee waaye officiel la. Witzel nag moom nag euh, prolongé na contrat am ak Atlético Madrid ba 2025 la Belge bi nga xam ne moo nekkoon foofee ca Dortmund waaye RB Leipzig signé na euh, gone googee ñu naan ko Assane euh, Ouédraogo mu ngi noone ci di millions d'euros contrat bi nag dafay dem ba 2029 officiel kookee ñu naan ko Paulo Fonseca moom nag jóge na Porto ba dem signé foofee ca AC mu doon coach boo xam ne nii ku am talent la waaye ku mën la muy def la euh, leen leeral que nii kooku di Eden Terzic nag dóor na démission pour war a mën a quitter foofee ca mun mu doon loo xam ne nii jot naa am Eden Terzic c'est officiel euh, na foofee ca Dortmund Marseille nag mu ngi en discussion ak kookee ñu naan ko désert bi bi nga xam ne moo nekkoon euh, foofee ca Brighton mu doon coach boo xam ne vraiment ku mën la muy def la jàmbaar dëgg la ñun en tant que Marseille bëgg nañ koo gis sunu club mu jàppale bu baax a baax terminé ko Davis moom mi nga xam ne euh, kooku di Bayern Munich daf ko euh, proposé beneen nouveau contrat moom nag dafa refusé contrat boobee euh, xamuñu nag ba xam dafay xaar ngir mën a libre comme Mbappé def pour rejoindre Real ou pas en tout cas loolu c'est une bonne nouvelle pour Real xamuñu nag lu mbiri lu mujjee lépp lu ci mënti am nañ leen ko tegal ci taaw bi ngeen xamee ko noonu gars yi képp koo xam ne nag abonné suma chaîne YouTube bu ko di taay duggal suma bio TikTok bi nga abonné activé cloche di seetaan jeex loolu ngeen ñu a soutenir bu baax a ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à vous jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf yàlla na seen jàmm yàgg yàlla na seen jàmm yàgg jaa ngeen jëf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 même bu weer bi tojee mën nga ñëw ñu defal la essence ci njëg bu mucc ayib en même temps aussi boo leen ko bëggee réparé ba ñu am nañ suñu réparateur ci bunt bi mën nañ leen a seen téléphone. ok échange bi mën naa ni euh, dañ lay jox portable bu clean boo xam ne. bu clean bu bees lay jox venant bu set bi bu la neexee ñu jox la sele. si yow lay def doon authentique lay doon. te yaa koy defar réglage yi mise à jour tout. Ah, ñoo koy defar dañ koy réglé lépp balaa